démb Ousmane Sonko daal nay def sorti man conférence de presse laa ko tuddee xaw ma réunion lañ koy tuddee man xaw ma nu koy tuddee ñu déglu ji Ousmane Sonko. opposition boo xam ne ñay ñay yi kenn ñemewu cee génn wax waaye da ngay dem fay nit ne ko jógal wax ñooñu nag ñooy les agneaux di sacrifice. ndax ñi ñuy naan ñeneen ñi ñuy fay naan lañ jóg leen wax lañ leen xamee mooy xaste ak saaga ah nañu xaste nañu saaga ah, et dama jàpp ni ñenn ñi dañoo dañoo gëmagul <laughs> dañoo gëmagul nekkatu nekk ñoom nekkatuñu pouvoir quoi topp ci nit di saaga di saaga di saaga mu muñ ba ñëw ñu jox ko doole nga ne damay saaga ah aywa te kuñ ci ne ñuuj nag doo gis gars yi avocat sax doo ko gis. gars yi mënuñoo xeex de ñii li ma ne benn lacrymogène la gars yi xaaj ñeent sànni leen ñu soj ñoom ñëpp mbir maa ngi nii nun amuñu problème na métti rek mais état de droit la ñu wax ku ñëw ne d'accord maag agriculture bi niñ ko doxalee wala napp gi wala càmm gi wala jàpp naa Ousmane Sonko avec des preuves jël na xaalisu réew mi c'est ton plein droit loolu amul benn problème mais xëy rek topp ci ay nit nekk ci seen der nekk seen vie privée dugg seen njaboot lu bon lu ne nga wax ko waxoon naa leen ko grand théâtre dégguñu am nañu mos nañu continuer noonu rek loolu dina jeex ci réew mi de wala dem fay nit ne ko bindal ma El Malick laa bëgg nga xasal ma ko wala nga détruire ko loolu dina jeex ci réew mi parce que dafa dul yoon nañu waxante dëgg tey il ñu comprendre yi nag bañ ko doon def mu yomb ci ñoom ndax ñoo yoroon lenge ngay am ñu leen boot ne leen defal loolu soppiku na kenn du fi instrumentaliser kenn mais dinañu def politique opposé wu dans le respect mutuel loolu moom dina am débat d'idées ku ci sa xam-xam man je suis prêt à tenir des débats avec tout le monde débat sur les politiques publiques sur l'État sur nos ressources naturelles sur nos finances publiques sur les... règles. leneen ku bëgg ñu débat Donc, amul problème mais y y a des gens a am ci au mi ba tax nag ñun ñun sonku man légui yow Sonko mi doon wax nii président parti Pastef la ndax nee na ñoom dañuy opposé wu Sonko mi doon wax nii mooy ki ngeen xamoon démb Sonko mi ngeen xam nii mooy Sonko bi nga xamante ne waxal na fi Mame Mbaye Niang complot nañ ko ci mbirum Adji saar Sonko moo nekk Sonko boobu moom moom laa gis nii nii nii alors mu simbi yére bi mu sol ko suñu premier ministre la ma ne mu sol ko mu simbi ko suñu premier ministre la euh, man li may laajte rek kenn ku ànd ak Macky Sall rek bi ñuy toogee ci nguur gi ba léegi ana kenn ku ànd ak Macky Sall ku ko saaga vidéo bi dimbali leen ma kenn envoyé ma ko. koo xamante ne moom makki sàll la ñépp xam nañ ni kii Macky sàll la àndal nga dem ba ci biir xam ni kii makki sàll la àndal ku saaga gouvernement bii Ahmed Suzanne Camara de dafa ni waxuñu dëgg ñu yóbbu ko prison Bah Diakhaté dañ koo yóbbu indi ay preuve ñu téye ko fa ba yàlla def na génne na tey jii yal na yàlla dolli sutura yàlla bu ko yàlla tegaat nattu bi tax mu dellu foofu ndax nattu la Ousmane Sonko nee na opposants yi nañu génn waaye yow ñoom lu ñuy wax yow débat di de yow daka tegagoo fi dara ci lan la ñuy débat di de ci lan yow côté politique defoo fi dara économie defagoo leen dara sociolo social defaloo dafa gooleen fi dara lan ngeen def lii indi débat di def te opposant yi nga pousse ñu wax da nga bëgg njëriñoo seen xam-xam waaye dina la dina la ump de du ñu wax Amadou Ba nee na waxut bañ ko laajee ca tuubaa dafa ni politique indiwuma fi te wax jotagul ñii waxuñu Idrissa Seck ma ngay tëdd nelaw Khalifa Sall ma ngay jaamu yàllaam Khalifa Sall mu ngi ci jaamu yàlla Thierno Alassane Sall pareil ak ñeneen ak ñeneen waxuñu munoo leen puus ba ñu wax bu dee boo yi nekk ci TikTok bi nag di di foo di wax di teg ay vidéo ak ay vaar ñooñu noonu ils sont ils sont libres waaye les vrais opposants ñi nga xamante ne c'était des hommes d'état te am nañ xam-xam te gëm naa bis bu ñu waxee yéen ngeen jël ko njariñoo ko ñii waxuñu binduñu waxuñu. ba ñu électionné ba léegi Idrissa Seck déggoo leen ko ci dara doomam jàpp nañ ko fi ba libéré ko da ngeen dégg Idrissa Seck waaye bu fekkoon doomu ki ma xam lañ jàpp sagam bag la fi amul ñu kaas bu doon moom lañ jàpp fuñ jëm ñii waxuñu yow yaay sa opposant bopp yaa nekk di opposé mën na je pas comprendre ndax tii au pouvoir wala tii opposant nga ne dañ laa saaga ba nga nekk pouvoir yow kan moo la saaga kan moo la saaga fuuta tampi moo la doon saaga fuuta tampi léegi ci yéen la bokk di fuuta tampi ci yéen la bokk awuskiti moo lay saaga léegi ci yéen la bokkoon wée la mal les village leaders de APR kan la kan nga fiy génnee ku la saaga Amadou Ba bi ngeen ko tuumalee bu mu toogee TFM dafa ni munul wax ju ñaaw Amadou Ba est-ce que dina jël xaalisam fay boy ne ko waxal ma lu ñaaw diw moo leen yar seen baay la sen maître la dafa am lu mu jël ci li ko yàlla ma suuti mu dugal ko ci seen bopp muy xam-xam santoo leen ko gërëmoo leen ko da ngeen koo xalab waaye nag dayam daal liggéey boo ko fande yow la xiif di rëy moom day lekk bu suur ba deseeru muy Amadou Ba ñii waxuñu Ousmane sonk ñii waxuñu munoo wax ba ñu wax ñii waxuñu yow yaa fi toog nga ne bind leen ba ngeen bindaat léegi bindatuñu wax ñii waxuñu boobu ba léegi amul benn vidéo Idrissa Seck boo fiy génnee opposant la woon léegi alas kii Khalifa Sall noonu Barthélémy Dias noonu Euh, kii Amadou Ba noonu Ndiaye Anta Babacar ñoom kenn waxul dégg nga bëgg leen foofu sañuy wax lu ñuy wax ak ci ban débat di da ngeen di débat Ousmane sunk ci lan ngeen di débat yow débat di de yow débat di de bi ñu bi ñu soxla dëgg dëgg dëgg dëgg demal nga def ko assemblée du nga ne ragaloo ci débat di de demal ñu poser la question ci assemblée ba ci mbirum débat di de ci mbirum luy doxal réew mi ci mbirum lan nga indi réew mi lan nga dencal réew mi fan ngay yóbbu réew mi loolu lañu soxla Ousmane Sonko pas nga toog autour di table di wax di ree opposant ñi ngay waxal xolal ñu ngi nelaw ba yàndoo kii war na toog naan ñemewuñu xeex ñun lu ñu xaax deux mille vingt yoo quatre vingt six ay waay ngal la doy na boo ci boolee ñi nga xam ne tey ñu ngi leen di fekk seen biir kër di leen rendi Aziz Dabala yal na ko yàlla yërëm xaree ko aljanna mu mag neveu bi kon ku baax seede yi rafet na yal na yeggalee ay mbiram ci aljanna yal na ko yàlla yërëm yërëm mboole mu doomu aadama bi fa nekk te yàlla yéexi ñu yow on parle pas de ça yow woowoo nit autour du table ngeen waxtaan ci ndox mi waxtaanoo leen ci économie bi waxtaanoo leen ci njàng bi nga xamante ne mois d'octobre ñëw na léegi ñu wax waxu ouverture waxoo ci Sonko lan ngay wax jàpp am na ñu ñam am na ñu ñam aca ñi ñam nii ko nañ te day day waxaat te da ngeen ko ja da ngeen koo teel a xamal nan lay waxee fi mu ne nii fi mu ne nii kenn mënu koo tere wax te dina wax yow war nga toog nga nekk njiit ñu dénk la nga nekk chef du gouvernement nga ñu ñam wax leen ba xam am na jikko yoo xamante ni ci lañ ko daan gis defante benn lacrymogène ñu daw tasaaroo buñ leen jàppee kenn lan nga bëggoon ñu jàpp Bah Diakhaté ñiy génn di taal ak yàq-yàq li fi Macky Sall naanaan boobu li mu fi def mu ko ci àdduna Bah Diakhaté purgé penam deful grève de la faim ay jabaram génnuñu di ñaan mu ngi biir saalam tok mom ak imam ndaw sha allah sen jëm taxul ñu rey nit sen jëm taxul ki am asma de sen jëm taxul nit war a añ añut sha allah ay goor yalla deug lañ ku togn nak yalla xam ndax yalla ay atté motax mu ne ñam am ñu ñam waaw amna ñu ñam mais est-ce que dina amal ñuy ñam est-ce dina bëri ñi ngeen wóolu de waaye di ngeen bëri ñi ngeen wóolu ba pare ñu ñibbi ndànk seen kër tax yàlla du juum du jaawale ñemewuñu xeex alhamdulilah ba ñu amee opposition bu tapet kon ñun gëm nañ ni suñu doom yi dootuñu dee kon gëm nañ suñu jëkkër yi dootuñu dee kon gëm suñu frères yi dootuñu dee alhamdulilah ba ñu amee opposition bu tapet nee na doo leen xeex ban xeex ak lan lañ fii xeex lan Ousmane Sonko yorum ñu. nee na cooki yow yaa fi ne cooki feeñ ñu cooki feeñ la ca ca cap manuel sa jabar yi génn di jooy yow tappale bu ne nga def ko ci opposant lu ne nga def ko cooki feeñ Macky Sall foo mujj nuyu Macky Sall nga ree mu ree cap manuel protocole bi ba tey yéen doo leen expliquer nu mu demee te yow yaa génn nga ne boo leen waxtaan woon xëy na di ngeen def ci prison bi dix ans te yow nga ne cooki nga ne nga ne cooki ban cooki nga fiy tuddaal ban cooki ak lan lañ fiy cooki fin